Halima ma ne nga jël say matukaay. ma jël samay matukaay pour lan. waxuma leen woon ni bu ma kenn mayati ndox am naa sama ndoxu bopp wala yow dafa am loo na góor man sa coomin la fu sa bët xonkee dama la ko war a fajal ndax yow tam bu ma tolloon si source d'eau yi noonu nga ma koy defale nañ ko roobee ci suuf xoolal ci suuf nag bu ko kenn dégg kii dootu ko rafet. yow laa doon xaar. bàyyil ba ma añ ba pare fi may wax ak yow nii man damaa xiif taluma ay wax. maar sagaram ci saal bi di la xaar sa kaaraange dañ nga bëggal de ñëwal mu dem. li yaayam daj la bëgg nga daj ko hmm. ku nekk ak li la yàlla séddee léegi yow yàlla keral la mu ne doo toog ci ker gi juum na mère Soda mi moo soxor dinaa la wax benn mbir gis nga Sénégal gi ñu nekk bu ñu lay woowee benn tur nga di ko bañ doo dof rek yem ci waaye da ngay ràngatiku bu ñu la woowee benn tur boo bëggul bul ko wuyu loolu koy yomb na. maar ñëw naa ba ci yow kalaame la wax ak yow amoo loo ci wax lu dul lii waaye man dinaa fajal sama bopp. du yow yaay kilifa gi wax naa ak yow ngay lii nga ciy wax man dinaa fajal sama bopp bu dara bett nag.